yadisam su soodaan fallu yaag um bi ngaataan um ngalam bi soodaan ñoo ngi lay siyaare yadisam asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk seen tur ak si seen sant ñi ngi fii nag eh, ci Touba ci Touba fan lañ nekk ñi ngi ndindi ndindi sëriñ fàllu Mbacké ñu ngi fii biir kër sëñ Abdou Karim daal di dugg si nag fii ci waañu yaa puy tubaarkaar la moom lañ seet si tey mu ñu naan ko soxna Faat Bintu Puy ñu nekk nag yéen a ngi gis lii di xeetu ndékki macha allah ñu daal di toll ci ndékki waaye tey dara du leen raw ci xeetu bernde te dara du leen raw tubaarkaar la macha allah ci biir waañ wi ndax émission kuddu ci noir lañ wax te émission kuddu ci noir ku ko wax wax togg te togg kat tubaarkaar la macha allah fii la samp baax ndax soxna si tubaarkaar la macha allah togg joxe rekk lay def de ba tax na dara du leen raw ginnaaw buñ jógee ci ndékki li dañuy daal di dem ci waañ wi waaye ba ñuy jóge foofu daal di ñaan sama partenaire bi nga xam ni moom lañu ñu àndal ci émission bu ni mel ñu naan ko émission Kuddu Cunwaar muy waa Harmonia maa ngi leen di nuyu bu baax a baax kër goo dugg mu seet wecc di xeeñ ñu neex euh, bu ko laajte bu fa duggee rek xamal ni Harmonia moo fa jaar ñu doxatuñu suñuy ordre de javel am suñuy oma am suñuy lépp képp koo xam ne nag yaa ngi fii Touba te bëgg liggéey ak waa armoña mën nga maa contacter ndax numéro téléphone baa ngi noonu ci ban écran bi képp koo xam ne it soxla nga émission kuddu cunwaar mën nga maa contacter numéro téléphone baa ngi noonu ci ban écran xam nga nu ñuy def nañ leen dem ngeen xool waañu soxna Faat Bintu Puy bi jàmbaar ji nga xam ni daa jaay lépp jëndee ndindi jaay taar ba jëndee ndindi jaay diplôme ba jëndee ndindi tubaarkaar la maasàllaa lu dul liggéeyal sëriñ Abdou Karim Mbàkke sofu ko loolu rek a ko ñor kon nag nañ leen dem ngeen xool Mbàkke yaa ñu koy jël ñu gis la ñuy sol lépp day valeur sopp fallu moo neex gëm sëñ fallu moo neex sa lépp day valeur bayu soxna mam maram fallilu bayu mam faati fallilu sëñ fallu bëgg fallu moo kuy bëgg fallu wanewul fallu jar na sëriñ Abibu Badir Rafaaxi Cheikh Sohar Rahman Fall du ma jaxle fal lu lay woo ma soxla fal lu lay woo te nag saa yu ma woowee sëñ fal lu am ci ndam bu leere ay sëriñ Cheikh Ummi Fall lu ay sëriñ Abibu Fall lu ma jaxle fal lu lay woo am ci ndam bu leen ca waañ wa ginnaaw buñ jógee ca kër ga tubaarkaar la ngeen daal di gis ndékki yooyu macha allah ndékki yi xéewale lool te bari nga xam ni ragal naa ni mënu fee jeex ah dañuy daal di dugg si si waañu waxoon naa leen ko yegg si nañ ci waañu soxna Faat Bintu Puy ki nga xam ne nee naa la ma waxaat leen dafa jaay taar ba jëndee ko ndindi jaay diplôme am ya jëndee ko ndindi baax gën riis mën boppam mën nitam mën ay mbokkam tubaar tubaarkaar la dara ñor ko lu dul sëñ Abdou Karim macha allah boo duggee ci kër ga euh, rek kontaan ci moom soxna si kon ñu ngi koy ñaanal nee naa ko ku yokkul yaa wàññi waaye moom day ba mu duggee ku nekk xam na ne dafa yokk yokk tubaarkaar la gan ni dana ñëw waaye dana daloo gan ñi kaar la waañ waa ngi nii dama leen di wan yenn rek ci waañ wi ndax xam naa ni lam samp lépp tubaarkaar la macha allah ah ci daal di gàmm rajo bi ragal naa ne mënu maa wone lépp waaye lu ma leen wan rek xam leen ni ci nekk rek tuuti laa leen bëgg fal nga neel la bëgg fal leneen la assurance la bëgg fal lu gàllaaj la Kaolack fekk nañ ñu commencé bu yàgg commencé nañ togg yi waaye yi nga xam ne rek macha allah moom moo fi des laa leen di wan nii waaw ñoom togg nañ ba noppi de desit yi rek laa leen di wan nii desit yi macha allah. asalaamaaleykum yaa booy. maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay. Ah, tey nag ay eh, Télé TVS jóge ba Kaolack ñëw fii ci waañ wi. ci émission kuddu cunuwaar bi nga xam ne moom la ñuy def tey ñu indil leen ko yaa booy nga am ci ban yëg-yëg. xanaa kontaan rek di ñaan sëñ bi mu yàgg fi lool te wér balay sax at mu jot mu fekke ko def lu ëpp lii ci kàttanu yàlla barki sëñ Fallou di ko ñaanal sëriñam bi sëñ Aboo gudd fan lool di ko ñaanal sëñ Mountakha mu gudd fan lool te weer barki sëñ Fallou. amin yaa rabbi yaa mën ma ñëw ci waañu soxna Faat Bintu Pouy mu nekk jigéen ju baax jigéen ju nangoo def bernde eh, jigéen ju yiw macha allah ki nga xam ne dara ñoru ko lu dul sëñ bi ak njabootu sëñ beeki ay taalibe sëñ bi. waaye yaaboo yi ma daal di ñëw fekk waañ wi te xale yi nee nañ ma lépp dem na man fekkewu ma bagaasu añ beeg yooyu lii lépp des fi nii macha allah ak li ca kër ga la ma fa bàyyi muy ndékki lan mooy secret yaa puy xanaa bëgg waañ wi nekk Baye Fallou sëñ Abdou Karim borom mooy borom bernde yi yow loolu ku ne xam na ko yéen a ngi yow yaa ngi koy gis mooy bendekat bi mooy baay faal bi macha allah kenn du xiif kenn du mar dara jeexut yëpp a ngi nii macha allah. kon dañuy daal di daw rek yëndu jiwaat biir waañ wi xool jigéen ñi seen taxawaay ah, tubaarkaar la nee naa la kenn du yàlla. loolu rafet na. kër euh, dañ may jox ay yére boo ak li ma sol yëpp ñoo ma soxna Faat Bintou Pouye dafa baax yàlla na ko yàlla defal jàmm ak salaam ayca mën ngaa ñëw jël waañ wi macha allah. tubaarkaar la fekk nañ nag gaa yu rosi euh, ndawalu añ bi waaye macha allah rek nee naa leen ndawal yi des na fi lu bëree bëri ci lu nekk nag ak lañuy togg macha allah xoolal lii xoolal lii macha allah tubaarkaar la macha allah nee na la kenn du soxna Faat Bintou Pouye ci mim réew mën lu baax mën teraanga mën bernde mama Tàkko na nga def. aji jaara ñang maa ngi sant bu baax di sant bu wér sant Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. ñaanal sunu sang Baye Abdou Karim Mbacke Fall lu mu yàgg fi loolu te wér ñaanal sunu yaayu daara soxna Fatou Bintou Pouye mhm. mu yàgg fi te wér man damaa waroon tudd yàlla sax na man noonu laa daan tàmbalee. lay lay Fall. la Cheikh Ibrahima. Ahmadou Fall Seer Njaay la ilaaha illallah Bay Karim Mbàkke mu fallilo balay sa yàlla daalu faal nga yëngo yàlla daalu faal nga yëngo Bay Karim yaaram nun yàlla daalu faal lan la bëggee bus bu siira taxawee haza karim loo fa daal bëgg noo lonk nooy faal diri noo bay karim gaal bu feesee day wetu waa addiyee Cheikh Ibra aji jaara ñang loolu mënut a ñàkk tubaar fakalla macha allah ñëw ci yaañu yaay puy soxna Fatmata bintu puy Baye Abdou Karim Mbacke wóolu ko jox ko daayira bu ñu naan tarbiyati wal adabi ñu ànd kaak mbooloo mi tubaar fa kàlla macha allah am na ñoo xam ne tey ñu ngi dem ci service ndékki ba ndax dañoo def buffet waaye nag ak jaara yaa ngi ñëw ci ci nu riz indien ah, bii mooy riz indien. sooy riz indien. waaw dañoo rusi te ñu lugaguñu da ngeen a russi ni te ñu lugo len li russi la ni Rusi la ko wax russi baangi ni russi ri eññee bo xoolee bee moy pay la ba kay kay non non yow ko ibil ma ci ni rek ibil len ma ni ma sha allah nee len, leen fekk tubar kar la euh, ñu daadi tal taal ba pare luma len doon won sank ay desit la rek li moy lan wa bi ci pay la la fruit de mer yi léegi après ma ñëw ngeen won ma fruit de mer yi allah paylaa ngi fruit de mer a ngi lii lan la cin bii lan la bii cinu lan la ma xool macha allah nee na bii ñii dañuy soogaru si nii nee na bii ceeb lay doon macha allah tubaarkaar la xanaa fii moom dox daja lay doon dara du fi manqué est-ce que mën naa xool cin lii cin lii eh laay lay la laa coro si ba la waaw waaw waaw ñu sunu faat bintu puy luñ toggul baaxul barki yonent bi lee lan la feelan la ne ceeb la ma xool ko moom tamit waa yow góor ñi doore la nañ de salaamaaleykum sëñ bi na ngeen def bii lan la Mohamed bii ceeb la waa sëñ bi yow ndax mën ngaa togg ceeb. mën naa togg ceeb kañ. dama dama def sama duulin tëmb sama yàppa après bàyyi ba mu léenee ba mu ba commencé muus ab ah, ma def samay saf safal ma defee sama saf safal après yëngal ko boobu saf safal yi jàpp yàpp bi ma def sama ndox uh-huh. après ba muy tem tami nag uh-huh. après mu tem tamee ma tay uh-huh. bu ma tayee seppi sama yenn dogi wàññi ko après def defaat sama ndox après xool li li manqué saf safal bu baaxee après ma defaat ma suur ba muy ñor nag diwis diwis ceeb bi nag bu ko defee du waw du wasan ah, mbaa xam ngeen ni kii moo leen dàq a togg yéen jigéen ñi léegi lan ngay wax ci soxna Faat Bunt Puy yaay Puy moom soxna su baala bu jàmbaare la gis nañ ni mu taxawoo sëñ bi macha allah ak ñun nu mu taxawoo topp nañ toppatoo nañu li war li waraax moom yëpp li ñu naax moom yëpp mu ngi koy dox macha allah yaa na fi yàgg te wér. Ah, jërëjëf euh, kooku moo jël tubaarkaar la macha allah ah ñi nga xam ne euh, dañuy liggéeyal borom këram euh, nekk ay taalibe ci biir kër gi di jàppale borom këram xam nga nu mu def daf cee jël ñoo xam ni daf leen a embauché tubaarkaar la macha allah chaque weer mu jox leen saleer nee naa la yàpp yi mooy baax yàpp yi macha allah dañ koy ñaanal yaa faalu yàpp yi nga ñëwal soxna si na nga def loo toggal ci loolu lu fa ne laax ma la laaxu caaxaan tiggil len ma wa fuñ toll ni kon dara jeexul ci wañ wi neena li la tiaxan la ma sala me yon tamit am ngeen jaarama de man de wañ wi rek euh, cin yi macha allah hmm, bët yaa yaangi joy ndax ma sala wañ wi tubaarkaar la ma sala li fi nek lepp bi it lan lay doon. eh la laaxu bisab lay doon yeen dal dara du manke ci wañu ngeen di togg. koy ak yalla rek. sunu yaay ji ci kaw ca kanam rek ku ne amba ci suuf bi lay yaay seen waaye yaay faatu dañ koy ñaanal yàlla lu mu bëgg ci ëtt bii yal na ko yàlla defal day yokk sax nag yal na ko yàlla yokk laay bëgg a wax parce que yaay yërëm na ay nitam yaay dina dimbale ay nitam barke Sëriñ Touba maa ngi koy ñaanal man de mënu ma koo fay waaye dama koo kalaameeg yàlla yow soxna sa nga yaay lu ko ñor yaay sëñ bee ko ñor yaay waañam bi da koo ñor gis nga ndab lu mu jënd ren du ko jënd déwén gis nga kaas bu mu jënd ren du ko jënd déwén tubaar fakkaat la masallaaw sama cat ak sama catul moroom nag yay bëgg bëgg ñëpp nag gis nga man mi di wax ak yow sama borom kër bëgg Fall la tudd ñu koy wax taalu bi sëñ Abdou Karim maa ngi sant yaay maa ngi gërëm yaay yaay lu ñum man ren diban yal na man lu ko raw. jërëjëf soxna si euh, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci yow ba tey rek nee naa leen maa ngi ci waañu euh, tubaarkaar la yaay puy ñu naan ko soxna Faat Bintu euh, cin li nee naa leen mënu ma koo dajal mënu ma koo dajal sëñ bi na nga def bi cin bi cinu lan la dindil ma xool ma xool sa rosi macha allah bi it nee nañ ci cin ceeb yi la euh, ba tey maa ngi leen di ñaanal waaye damaa gis Serigne Fallou mi nga xam ne nee naa leen tey euh, émission Kuddu Thiounwar day ala dawme ndax Serigne Fallou moo tax ñu ñëw fii tey te sëñ Fallou moo yor caméra bi waaye sëñ fallu laa jàkkaar loolu nii ci waañ wi sëñ Fallou nanga def. waaw salaamaaleykum maa ngi lay ziar bu baax Badiane maa ngi lay nuyu di ñaanal xalifatul xam di taraxat mu jëm Cheikh mu Mountakha suñ borom guddaloo fanam te wér ay cërëm di ñaar suñu am du moo di benn xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal sunu wasila sunu sëriñ sunu soppe sunu lépp Cheikh Abdoul Karim Mbacké mu dund téeméeri at yu tàmbalee ren nga fekk ma fii si waa Ndiaye Pouy di kenn si soxna Cheikh Abdoul Karim Mbacké nekk sunu yaay si kër gi fonkuñu lool bëgguñu lool yow it maa ngi lay baax bàjjen nga jugee Kaolack ba fii ànd ak waa TV Saloum di télé bu mag bi nga xam te ne waa dañ koy bàyyi xel tey nga ñëw fu mat a yow muy Touba ñëw fi mat a ñëw muy Ndindi ndindum sëñ Fallou fekk fi si Abdou Karim Mbacke mhm. ñuy def màggal goo xam ne dañ koy wax màggalu Kazu Rajab muy màggalu sëñ Fallou nekk màggal gu rey nga ñëw yor sa émission bi nga xamante ne mooy kudd ci noir ñëw waañu yaay puñ kon daa mel ne mat na mhm. ndax waañu mënoo fee ñëw te gisoo fi kudd ci noir mën nañ ñàkk <laughs> kon waañ a kudd ci ñoo ànd kon nag lépp benn la wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax ay ca Serigne Fallou kontaan naa kii sama doom la macha allah man ba ma gëstoo gis ko fi sax damaa tiit ndax maak papaam ñoo bokk ndey ak baay waaye mu nekk xale bu am jom xale boo xam ne téer la lu ñawul baaxul waaye tubaarkaar la macha allah mu nekk ca kër ga nekku fa taaw de waaye nag macha allah defu nu taaw lay def am na yar am na teggin respecté na ñëpp kon dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm moom ak rakkam lépp lu jaag jur rek ñu bokkal baay ak ñu bokkal ndey ak baay nañ xool cin lii nañ xool cin lii. waaw soxna si. cin li moom loo ñu fas yéenee toggal fii. maa ngi leen fas yéenee toggal ceebu ndawal bu doore bu saf sàpp ci waa waañu soxna Fatou Bintou Pouye Mbacké mooy jàmbaar yi nga xam ne moom kuddu dafa damu ci loxoom. mën a joxe ñam. te nga xam ne ñu ngi boo nee lan mooy tax a yegg si yàlla wala lu lay tàbbal àjjana lu gën a gaaw mooy joxe ñam te soxna Fatou Bintou Pouye Mbacké da cee aay. moo ci mën ku koy def danga koy ci moom nga koy royee xoolal jàmbaari Baye Karim Mbacke borom tarbiyatu yaay faalu Baye Karim Mbacke borom tarbiyatu soxna Fat Bintou Pouye Mbacke borom tarbiyatu waa jërëjëf kon nag dañuy daal di dem jël sebet bi macha allah la daal di dem ca ña nga xam ni macha allah fruits de mer yeeg yooyu ñoom seen yi nga xam ne day ànd ak waañ wi xoolal macha allah jàmbaar ca waar wa eh way Samba ma ne ko jàmbaar ca waar wa waaw sabartikat yi xam nga si dañ koy teg si xam nga seet la set lépp amul daray ñàkk lépp dañ koy teg si yoon waa soxna Tako lii lanati la nii waaw lii de aji jaara ñang ay xar la rek yu ñu war a def suñu pay laa ñu tem tem waaw dañoo def ginaar def yàpp xar def yàpp nag. daal di jël ay tànk xar yu ndaw rek tëmbal ko. rek mu daal di ñor ma tegal la ko. <laughs> non émission kuddu ci noir non non kuddu ci noir tey kudd nañ sëñ bi daa mel ne dangay tànn de ah macha allah. Hmm. suppu kanja bi de rek ngir bëggal bëggal kan ñi rek bëggal kan ñi rek nit seigne fall taxa ju rek waaw waaw ñepp ñu barkar la su dara seigne fall li ay crab la wala lan la ni ay crab crab ang ci bir lango sang ci bir crevette ang ci bir mo la ñu ci bir man say xeetu gejj ma jaaxal yëkëti ma benn gejj ma xool waay man man li waa lii lan la nii ci gejj beur nak ey mbay ca supp kanja bala masha allah laf cat na rees ak jàmm nee naa sama xarit yi man lii mooy sama xarit lii ay eh, mbay soxna si na nga def sama yaabu eh non man nag dama fee xaw a gëj nag sama yaay yu baax yaa ngi nii. waa def am sant rek. maa ngi lay nuyu bu baax. wallaay maa ngi lay fay. waaw ma fekk la ci waañu soxna Faat Bintu Puy bi. waaw nga représenté lan. xanaa tubaar fa kàll rek. Mhm. représenté rek yaay puy di sama doom. Mhm. ñuy sant nag yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. sant Serigne Touba ak waa këram. sant Alaaji Fàllu di sant sëñ Abdou Karim di ñaan yàlla yàlla na fi yàgg ca wér. di sant nag yaay faay bintu buy. ndax moonu sagal. moonu nu bëgg. moo nu dimbali. moo nuy jàppale. barke Serigne Bamba. bëgg ñu nag ba mu jeex tàkk. moo ma waral nag sama toogaay bi mu am ma teg lool nag. puy yaaram. dina ma dimbali dina ma teral am na man safoo. am na ci man faale am na ci man yërmande maa ngi koy ñaanal yàlla lu muy jeex ci kër gi mhm. yàlla na ko gis jërëjëf lu muy wut ci kër sëñ Abdou Karim mhm. yàlla na ko fa fekk ci doole Moustapha di ñaan yàlla nag ñu teewe ko déwén yu bari amin amin yaa amin yaa booy kontaan nañ tibaar kaar la macha allah waaw waaw ñu nee nañ ma aji jaara ma ne a ah, ñu ne ma soxna Faat bint Puy yaay Puy Kase yaa di sam daan xalu yaa dinaa daan um ngalam bi soodaan ñoo ngi lay siyaare yaa di sam su soodaan sin fallu fallu yaa ka nga daan sin fallu um ngalam bi soodaan ñoo ngi lay siyaare sin fallu yaa di sam su soodaan fallu yaa ka nga daan um ngalam bi soodaan ñoo ngi lay siyaare yaa di sam su soodaan sin fallu fallu bornawaati am xel ndem sa xol gi ñaanul ma nga doon kuréere yadi sam soda bayu sëriñ moo dugg sa jëñ bayu sëriñ faara abdu si fallu fallu ay gadaa neex leer na gaay ndax neex fallu rekk leen neex way wi am na séeréer gàllaajoo ku ma xeex ma lay ree si afa ma yi nii sol mbàkka yaa ñu koy jël foo ñu gis la nii sol lépp day valeur topp Fallu moo neex gëm sëñ Fallu moo neex sa lépp mam mareem Fallilu bayu mam faati Fallilu sëñ bëgg Fallu moo neex leer na gaay ndax neex kuy bëgg Fallu wanewul Fallu jar na fee alhamdulilah yaakaar naa ne tey yéen ñuy seetaan émission kuddu cunwaar gépp bég ngeen euh, tubaarkar la gis ngeen li nga xam ne moom laa leen jëlali woon euh, fële ca Touba Mbakke ah ca Ndindi euh, kër Serigne Fallou Mbakke ñu nekkoon ci waañu soxna Faat Bintu Puy tubaarkar la ku nekk xam na ne nag macha allah waañ wi ala daw me na nee naa leen waañ wi du jeex xaaruñu ko it mu jeex ndax feeg rek màggal gi mi ngi daw rek na la leer ne waañ wi mi ngi gën a neex mi ngi gën a xumb ba nii ma taxaw di wax ak yéen ñi ngi noonu di waat ay ginaar di waat ay euh, pitax euh, di wàccewaat ay xeetu jën yu mag lu la ñu ngi koy waat wàccewaat kar la pour taalaat man leen waa lii lan la ñu ne ma cin bu du teggeeku benn yoon bu lii di waaj pare rek ñu ngi tegaat yeneen cin yaakaar naa ne gis ngeen lax yi eh, caagri yaa ngi ñëw mais fii laa yemale émission bi eh, di leen ñaanal eh, déwénati déwénati ñu fekk ko ay déwén yu baree baree bari sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla na fi yàgg te ñu ngi koy ñaanal waaye ñu ñaanal soxnaam Fat Bintu Puy ñu naan ko yaa Puy mu nekk jëmm ju baax nekk jëmm ju yiw jaay diplôme ba jaay taar ba jaay lépp daal di jëndee ndindi tubaarkaar la macha allah ñëw fii képp koo xam ne taalibe nga macha allah boo jàkkaarloog moom mu jox la sa wàccuwaay kuy xarit boo jàkkaarloog moom mu jox na sa wàccuwaay dara ñor ko lu dul sëñ Abdou Karim Mbacke kon ñu ngi koy ñaanal te nag ñëpp ñaanal nañ ko macha allah yàppuy yàggal wéral sëñ Abdou Karim yàgg fi wéral alhamdulilah yaakaar naa ne tey yéen ñuy seetaan émission coupe du Thiounwar gépp bég ngeen euh, tubaarkar la gis ngeen li nga xam ne moom laa leen jëlali woon euh, fële ca Touba Mbacké ah ca Ndindi euh, kër Serigne Fallou Mbacké ñu nekkoon ci waañu soxna Fat Bintu Pouy tubaarkar la ku nekk xam na ne nag macha allah waañ wi ala daw me na nee naa leen waañ wi du jeex xaaruñu ko it mu jeex ndax feeg rek màggal gi mi ngi daw rek na la leer ne waañ wi mi ngi gën a neex mi ngi gën a xumb ba nii ma taxaw di wax ak yéen ñu ngi noonu di waat ay ginaar di wàccewaat ay euh, pitax euh, di wàccewaat ay xeetu jën yu mag lu la ñu ngi koy waat wàccewaat kar la pour taalaat man leen waa liilan la ñu ne ma cin bu di teggee ko benn yoon bu lii di waaj a pare rek ñu ngi tegaat yeneen cin yaakaar naa ne gis ngeen lax yi caagri yaa ngi ñëw mais fii laa yemale émission bi euh, di leen ñaanal déwénati déwénati ñu fekk ko ay déwén yu baree baree bari sëñ Abdou Karim Mbacke yàlla na fi yàgg te ñu ngi koy ñaanal waaye ñu ñaanal soxnaam ko yaa puy mu nekk jëmm ju baax nekk jëmm ju yiw jaay diplôme ba jaay taar ba jaay lépp daal di jëndee ndindi tubaarkaar la macha allah ñëw fii képp koo xam ne taalibe nga macha allah boo jàkkaarloog moom mu jox la sa wàccuwaay kuy xarit boo jàkkaarloog moom mu jox la sa waay dara ñor ko lu dul sëñ Abdou Karim Mbacké kon ñu ngi koy ñaanal te nag ñëpp ñaanal nañ ko macha allah yàppuy yàggal wéral sëñ Abdou Karim yàgg fi wéral euh, tubaarkaar la léegi nag dama lay daal di bàyyeeg nag. rek sama caméraman bi ñu daal di ànd mu daal di génn yu sedd yéeg yep ndax neena len fi lu fi nek man bir ma ni mënumaa genn lepp lepp lepp xajul ci wéru émission sax waxuma la ben fan euh, kon nag euh, la ma ngi len di gëreum di len sant di gëreum fallu mi nga xamni mom la andal tay mu yor kamera bi ndax nak serigne fallu kat bu ñëwé ci magalu tubaarkaar la macha allah ma turondom gi ah fi ci kër serigne Abdou kabirim yor caméra bi abu ah, bu filmé war na man mi aji jaara mam jaara bu sa proxaan lañ ma duppee kon su ma filmé xanaa war na su ma ñëwee yor tey présentateur xaw ma présentateur la ñuy wax xaw ma présentatrice macha allah ah may daal di bëggee ñëpp rek di ñaanalaat yaay puy di ñaanal sama sang yu ma fekk ci kër gi ñoom fàttàkku ñu gide ma ci waañ wi képp ku nekkoon ci waañ wi muy góor di jigéen luñ mën ren bu déwénee yàlla nañ mën lu ko ëpp maa ngi leen di ñaanal bu baax a baax ah di ñaanal àdduna bi yëpp nag di ñaanal suñ Sénégal gii yal na fi yàlla def jàmm ci barke yonent yàlla Muhammad émission Kuddu Cunwaar nag nii rek lay tëddee yéen ñu nekk ci dëkk bi yëpp képp koo xam ne bëgg nga ma indil la émission Kuddu Cunwaar sama numéro téléphone a ngi noonu ci ban écran bi soo ma owee rek macha allah ah dinaa la ñëw indil la émission Kuddu Cunwaar waaye nag may oowaat sponsor yëpp. di gërëm sama sponsor bu mag bi nga xamne mom la andal muy armagna moy talalat ñepp loxo rek képp kuy jaay mew bëgg na la kuy jaay ceeb bëgg na la kuy jaay diiw bëgg na la on a kullu loo day dem ci wañ war su kër yépp rek ngeen dik sponsoriser émission bi ni mel ah, tubaarkaar la ma ngi gërëm ñepp di sant ñepp di ñaanal ñepp waaw waaw kay mhm. Seydona Rasulullah sayduna rasulullah borom Madina tey nu delloo ka njukkal Muhammad sayduna Muhammad sayduna Muhammad sayduna Madina bàyyi Seynab ak ku sopp baayu Fatima ak Umu Kaltoom maami Asan ak Useynu ma des Karbala maami Cheikh Abdou Khadir Jilaali nabi maami Cheikh Saad Ba nabi maami Cheikh Mal Ayni te mooy maami Cheikh Fallilay ku sopp Sëriñ Fallu ku sopp Sëriñ Fallu ku sopp Sëriñ Fallu ku sopp Cheikh Fallilay Alaaji Fallu alaaji fallu alaaji falli looy bàyyu Cheikh Modou Bousso ana soppa yi bàyyu sëriñ Modou Bousso Dieng borom Touba xayra sëriñ Modou Bousso Dieng taw bu tabbi ci kër baayam Cheikh Modou wàccul woon kër gi moom ba kenn di jooy fallu mooy magi alaaji Mouhamad Lamine Baara Mbacke mi nu dippe borom Mbacke Kajoor moom la nu dippe borom guy mbind moom la nu dippe borom kàddu ku sopp Serigne Baara Baaraay Baara Fallilu mooy magi Serigne Abo Mbacke mu baraka magi Serigne Basiru Fallilu magi sëriñ Abdou Fatah Mbacke magi Cheikh Mourtala Juma magi sëriñ Afia Mbacke magi Cheikh Abdou Karim Cheikh Abdou Karim Mbacke Fallilu tëdd jawde may na ma xel man ku sopp Cheikh Abdou Karim Mbacke wayantoo sa tur may na ma baat bëgg sa jëm defal na ma lu ma jomb Cheikh Abdou Karim Cheikh Abdou Karim moom Baye la. sëñ bi jërëjëf sëñ bi jëf sëñ bi yow yaay kan. may alaaj jéeri saw ñu wax alaaj bay fal bëgg Fall bu Cheikh Abdou Karim Mbacke Fall yooyu. ndeysaan kontaan naa ci tey nan nga gisee màggal gi. comme comme nam daan demee rek ndax sëñ dafa ne. sama tey gune gàcceel na sama démb. sëñ Fallou ne man maay leeru fajar te leeru fajar loo gën a xuus mu gën a leer. te Cheikh ab bu ñu nee ñu ne mooy ngëneelu yàlla waaye bu ñu nee sëñ Abdou Karim Mbacke Fall lu ñu ne mooy jaamu bi yàlla bu tedd bi kon jaamu yàlla bu tedd bi bu ñëwee woote la bi woote woon ca Màkka muy màkkaarimal axla kon bu ñu wuyusee dañu war a sant yàlla ndax yonent bañ koy yobal dañ ca Màkka dañ ne ko boo demee defaral jikko yi rafetal ko mhm. kon bu suñu Abdou Karim Mbàkke ñëwaatee fii si si si si Mbàkke ñu woote woon màkkaarimal axla ñu ànd ko moom boobu ba ba tey jii kon dañu war a santaat yàlla bu baax a baax euh, jërëjëf sëñ bi daanaka sax euh, tàggoo woon naa waaye macha allah da nga maa yëngal danga nga maa daaneel euh, ba tax na xam naa ni Serigne Aliou Fall mu ngi may dégg mi ngi télé Kaolack tele TV Saloum télé bi télé président Serigne Boub la waaye nag dinaa la fa utal rendez-vous pour ñu invité la ndax nag dafa am ëtt boo xam ne ñu ngi ko tuddee ëtt yonent bi Serigne Aliou Fall di ko def di fa invité ñu mel ni yow incha allah xam naa ne danañ ci boole danañ la invité ci kàttanu yàlla maa ngi kontaan ci mel na Cheikh Abdou Karim Mbacké fal ni man de taamu naa borom jikko ju tedd man ba mel ne borom makaarimal axlaaq man de taamu naa borom xol bu man ba mel ne baayu ma yëg man de tàmm naa borom jukko ju tedd man ba mel ne bàyyi soxna moomi mbàkke mi man de taamu naa borom jikko ju tedd man ba mel ne sëriñ bàyyi ndiidi sëñ galas ndiidi njibi mooy bay faalu cheikh abdul karim asa karim ibnul karim wa ismuhu abdul karim man de naw naa jëmu ju tedd man ba mel ne yaay fatu bint puy mi man de naw naa borom jëmu ju tedd man ba mel na soxna yaa bint puy mi